asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki tayla bi ñoo ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadul Muntaxal Basiir di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd wu ànd ak jàmm ak ba lépp loo xam ne naal na ko liggéeyal sëñ Tuba mu am ko nam ko bëggee te ànd kook taalibe sëriñ Tuba yépp naa sëriñ Abdul Xadir a tax ñu naan sëtu imam looloo tax ñu naan sëtu imam waaye tur wi nag <clears throat> tur wi ñu euh, wi ñu jox moom wi nga xam ne ni sëriñ Abdul Xadir a ko toqantal suñuy nopp mooy yonente yàlla Ismaahil la ñu tuddee loolu rek moo indi sëtu imam gi lañ ciy sànni kàddu rek mooy jamono soppeeku ba noppi it jamono changé muy jamono yu njëkk ya yi yi daa xew yi xew ni daana xewaay booba nag jumtukaay yee yombutoon ba tax na doo xam ñi nga xam ne ni xam nañ seen bopp euh, xam seenub cër ak ñi nga xam ne ni maanaam noon na leen yàlla bindee muy wax ju ñaaw ak wax lu bon euh, lii nag ay jumtukaay gu jàppandal seeni kàddu euh, loolu rek la waaye nag dutee nag dëkk Sëñ Tuubaa bi moom dafa am borom te borom bëggoon fi jàmm ak tew tawféex ak sutura ak jaamu yàlla kon nag ko fi nekk it moom war nga ko sàmmaleeg sëñ Touba ci wax ju rafet walla foo wax ju ma ñaaw ma mën a jóge moom yow mi dëkk ci dëkk bi wuroo bokk ci ña koy ña koy génn saw làmmiñ waaw looloo tax moom képp koo xam ne ni yaa nga ci sa yeboo nga bàyyi ko ndax amul jëmul kër te amul benn njariñ wax ju ñaaw moom jëmul kër te amul benn njariñ rawatina nag di ko wax ci ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ waaw day am na yoo xam ne ni matuñoo roy ndax euh, euh, ndaw yi def loolu ñu nag ñoom ñoo bokk jamono nit nag bu juddee bu juddoo dem ba doon magum jëmm ba dëgër day natt am nattuwaayam ci ay waajuram euh, ba tax na élection yi mooy ñi nga xam ne ni ñoo tax ñuy dang-dangi buñ nattee seen bopp rek daanaka ñoom waru leen a jaral xeex a xuloo dafa doon war a doon lu fair play loo xam ne nit ki war naa mën a romb am nawleem ñu joxante loxo ku ne wax sa sa sa programme bu ko defee nag nit ñi ñooy àtte ku ne kala doy euh, ñu dem votel la euh, que le meilleur loolu moom mooy mooy mooy Sénégal parce que euh, li li may faral di naqari ci ci ci discours yooyu sax ak nit ñi ni ñu gisee kii ñun saa suñu bëggee wax ne démocratie wala dara suñu xel yi ci tubaab yi lay dem. te ñun ñi nga xam ne ñoo ay ay ay ay jullit rawatina ay talibé Sëñ Tuubaa ñun dañoo dañ ko dañoo bañ loolu mooy dañoo gëm ne maanaam jàmm ak dem maanaam li naan démocratie maanaam nga xam ne nit ki maanaam am na am na am na am na noflaay wax lim xalaat luñ la ci may lu mu bëri bëri it dafa am foo war a yem ci maanaam jàngale ay teggin du dañ lay may lépp nga jël lépp kon looloo tax ñi nga xam ne ni ñi ngi ci wàllum politique mi. léegi nag image yu njëkk yi it mooy euh, su ñi nga xam ne ne ñoo ñoo ñu jiite euh, ak ak ñi ci ñi nga xam ne ñooy dagaan baatu askan yi ñoom it ñoo war a wane exemple yu tax ñi nga xam ñoo nekk seen ginnaaw nga xam ne luñ luñ def rek loolu la ñu gis ñoom it di ci royat ñoom it ñuy fexe ba di comportement comportement yoo xam ne ni day na am njariñ ba bu ko defee ñi nga xam ne ñoo nekk seen biir duñu xuloo duñu xeex ndax politique moom jotul xuloo xeex ku fekkee ku bëgg a defar dong nga defar moom jërut xulub akub xeex kon nag ñu ngi ñaan ñu ñu ñu dakkal ko te defaraat suñu xeli ndax fi jamono toll moom nit ku ne boo toogee rek war ngaa mën a xam ne lii moo baax ci yow ak lii moo bon ci yow. relation nag mooy diggante taalibe kub sëriñ loolu la sëriñ Moustapha sama sëriñ la sama wasila la yaakaar naa sama taw moom laa ko tuddee. Euh, comme ni ma mel ak njabootu Serigne gépp man wutaluma sa fenn ne fii laa yem dama dama dama dama yaatal sama jëmm ci waa kër Serigne ndax loolu lañu ñu digal sëñ së sëñ Moustapha Sali woon ne waxoon ne njabootuk Serigne Touba gi ku ne euh, maanaam ku ne ab cër nga ci Serigne bi buñ ko boolee maasee defal muy muy jëmm loolu laa gëm man moo tax danga ma fekk kër Cheikh Mamadou Fadal ma fekk Cheikh Mouhamadul Moustapha kër sëñ Abdou Khadir fi laa bokk kër sëñ euh, Basiru foo ma fa fekk rek da ngay jàpp ne fa bokk te loolu it mooy mooy moom mooy njàngaleem sëriñ bi mooy ka jiitu jiitu ko ca war a topp topp ca waaw loolu moom man man noonu lay doxee te loolu la loolu laa gëm moo tax daanaka euh, ni ko yoonu murit baaxoo muy aslamtu nafsi gi moom euh, ku ne yaay xool sa pas-pas. waaye nag euh, njabootu Sëñ Tuubaa gépp lañ yemale ci liñ gëm niñ ko gëmee ngir yaakaar ne moom lañ jox suñu suñu buum ci Sëriñ Tuubaa noonu la noonu lañ ko gëmee ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci waa kër Sëñ Tuubaa yëpp. loolu moom dugg nga fu ma sawar euh, waxtaan te amaale ci yu ma war a mën a tontuwaale occasion la ci waaye wolof nee na lu waay di wuyoo da koy nuru te bu fekkee sax ci colka gi rek moom lañ ci roy day nit ku baax moo tax ñu ko ci roy waaw ndax benn euh, boo ko xoolee da nga xam ne kii ab sénégale la piir maanaam lenn loo xam ne ni danga nga xool ci colintam rek mu nuru lu dooye di du am waaye loo xam ne ni maanaam nit koo xam boppam ba noppi euh, xa maanaam fonk boppam looloo tax waaye nag dafa am loo xam ne ni nag Euh, deret lay doot ndax <laughs> buñ ne kuy sa waajur nga ne sëñ Mourou mu sëñ Abdou Khadir kon buñ ne moom la ñuy moom lañuy ñuy roy ci doxalin nit wurta bett kenn waaye nag euh, soxna nday maam astolo mi nga xam mooy waajuru sëñ Mourou Abdou Khadir yaakaar naa ko demoon ci sëñ Basiru dana la nett lu lu mel noonu da ko daa wax jamono naan ko yàq nga doomi jàmbur ci waaw loolu nag mbirum yàlla waaye nag it ñu sant ci sëñ Tuubaa bu baax euh, ndax Euh, foofu moom bëgg naa cee insister tuuti Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdul Khadir dama bëgg euh, loolu nag taalibe Sëñ Tuubaa yi laa ciy wax ak ña tax ña tax may wax ci mbir mi première doomi Serigne Abdul Khadir la ñaareel ba sëtub Serigne Touba la ñetteel ba it Eh, eh, sëtub sëriñ Mbàkke bu la misaal foo ko làmb ci mbaax da ko dajale ba mat sëkk waaye mu jaay lépp jënd ko ak taalibe tey nag dana dana eh, xam naa ne xëy na bu ko déggoon man naa man man man na mënoon na mën naa mën naa wax ne wu lii wurtoon a leer waaye ci dëkk bi laa bëgg ñu xam jëf yi mu fi jëf te sëñ Tuubaa rekk tax jaarale ko it ci détails yi ñuy wax ci internet bi dama cee bëgg indi lu leer nañ loo xam ne bu ko defee man nag eh, damay waxaale fi ne waxuma ay njañ ndax njañ moom baaxoon nañ koo xam ci kër Cheikh Ibra mm-hmm. waaye ñi nga xam ne ne dañoo nekk ci internet bi yoree rasta ñooñu nag moom moom taxul ñu may wax ndax ñooñu moom da xam ne eh, ginaari pondos yi daanaka ñoom man mas man nga man mënees na leen a xoolee ak ginaari pondos yi nga xam ne ñaanam daan laal mu dee laalul mu dee la maanaam ñoo xam ne nii lañ bala ñoo mën a wax wax ju bon faw ñu jël dara ñooñu moom daanaka dama leen a classé ne le waaye ñi may wax mooy nit ñi nga xam ne nañoo nekk ci dëkk bi euh, cër bu mel nii cër bu mel nii sëñ Touba dénk ko ko mu ci liggéey liggéey bu kawe nag te danaa leeral lépp tey ki ko njëkk a sant fa la foofu laay njëkk a tàmbalee te samp sëriñ doomi sëñ Touba du dañ ba ilaa yow diini danaa leen ci nettali xista boo xam ne da ngeen xam ne lii mu yor cër bii maanaam ñaanu doomi sëñ Tuubaa la sëriñ Basiiru dafa masa am bis boo xam ne dafa demoon ndakaaru tukki fa bi mu demee ba dëpp ba ñëwaat Touba jaar kër sëñ Saaliw te eggugut këram bi mu jaaree kër sëriñ Saaliw fekk fa sëñ Moussa Niang yaakaar naa li may wax vidéo yi am na ñeneen ñu ko gis mu ngi fi doonut lu ñuy taqalee ko wax bi mu fa jaaree sëñ Moussa Niang dem yëglul ko sëriñ bi sëriñ bi ne ko bi mu ko yëgloo mu ñëw mu ne ko ah yow de dama laa namoon sax ba bëggoon laa woolu ne ko baadu musa Niang moo la woolu ne ko Moussa yaa ko woolu Moussa ne ko déedéet woolu ma ko de Mbàkke moo ñoo ñëw di siyaare mu ne ko dama dama dama demoon Ndakaaru mu ne ko foo yandu mu ne ko puut mooy fii Dangote gi nekk fafa histoire bi Serigne Saliou ne ko foofu de dama faa amoon ay tool sax dama faa amoon ay tool wa waaw usine Dangote bi fi mu nekkoon foofu la foofu la sëñ Saliou amoon suuf da nga koy xool nag ci at ci jamonoy Serigne Saliou Serigne Bassirou yan at la amoon ak kan moo ko doon liggéeyloo ak ñaata njabootu Serigne Touba ñoo fi nekkoon nga xam ne kon cër suñ borom da koy teel a fàggu defal ko doomu aadama sëñ Saliou ne ko foofu de dañ ma ko ba mu fa defee ay fan juróom-ñaari kab yoo ñëw yoo xam ne nii dañoo déjjërti ëkk ya la suuf sa dagg garab ya matt ma fa nekkoon ñu moom mu wut juróom-ñaari camion yoo xam ne moom lañ fa dajale indil ko sëñ Saliou fii sëriñ Saliou daal ne ko danaa la ci ñaanal doo taqaleekoo kook liggéeyal sëriñ Touba loolu xam nga ni ñaanuk doomi la doo taqali doo taqali kook liggéeyal sëriñ Touba ñaanuk sëriñ doomi sëriñ Touba bal la fi fi ma la koy mën a leerale mooy. la tax euh, euh, Serigne Saliou def loola la war a xam lu mu ndax Serigne Saliou sëñ Abdul Xadir la woon. sëñ sëriñ Serigne Bachir moom sëñ Abdul Xadir mooy caatu sëriñ Abdul Xadir matt moomu ba mu ñëwee. daa wax Moussa ñang ne ko yow de xam naa na nga soxla matt waaye nag fexeel ba yóbbaaleel ma ca loo xam ne ne xel kom ngir ñu barkeeloo ko. kon man ko kon fàggu teefug sëriñ doomi sëriñ Touba la rawatina bi mu amee cërub sëñ Touba nga xam ne doomi sëñ Touba mooy waajuram muy sëñ Abdul Xadir ñaan googu fa la koy wéral mooy sëñ Mouhamadou Lamine Baara ndax fekke woon na bay sëñ Saliou wax loolu ah fekki ko xam nga déggu ko it bi mu doonee sëñ Touba kan la njëkk a tànn Cheikh Mouhamadul Bachir kon ñaanuk doomi sëñ Touba du far mukk ba ilaa yawmi diini loolu di dox loolu di dox loolu di dox loolu di dox ndax bi koy sëriñ Saliou ñaan ak bi koy sëriñ Alaaji Baara def ñoom ñaar déggante wuñ ci mu liggéey ci liggéey bu rëy boo xam ne ni ñëpp teg nañ seen bët booba ñaata njabootu sëriñ Touba ñoo fi nekkoon kon loolu da wër wóor ne ab cër la. tàccee at ci ni muy jëfee ak ni muy doxalee ak ci comportement am dangay xam ne kii comportement bi muy yor suñu borom ak ko maanaam lii du ñëpp ko bëgg di ko am tawféexu suñu borom la muy comportement am koo xam ne ni loo ko wax ci lu bon. mu dégg ko finiti ko te lu ko te lu mën a faj la nag xam nga loolu nit ñi dañ koy jaawale dañuy xam nga euh, gaynde du xiiru bu matee gaynde dëgg day am loo xam ne tur woo xam ne nag nit bu ko xasee wuyu mooy Bachir lu muy firi sëñ Bachir booy déggoo ñu naan sëñ Bachir borom mbég mi ci kaw gi nag boo ko xoolee da nga naan kii daal lu fo fo fo la neex jaar fa. waaye biir gi di gaynde gu mat sëkk waxuma la jëmmi boppam rek waaye sunu kalaas gii rek manoon nañ lu ñu dégg ci moom te muy nekk ci dëkk bi nag lu concerne senegal laay wax su bu bu ko nit xëyee wax bu gonte du du du fanaan te lijjanti ko waaye dana jëggal naa ñépp moom ci boppam ku déggoon i kat noonu dana ne jéggal naa ñëpp waa ku dem ba nga xam ne nii bu fekkee poñetum àdduna doom la ñuy wax. nga xam ne bu fekkee nit kuy xëy di wuti moom nga moom ngay sàkku moom yàlla teel ko ko jox déggu leen fii télé bi mu ne sama kër li may rëcc mooy kër yi ma am ak nàngam bi ma am. gis nga ñiy cëpp cëpp ñëpp li koy waral mooy dañoo dajut dañoo amut. looloo am na ko xam nga nit ñi ñoo baaxoowut buñ génnee war a wax lu baax wala war a gëstu ji lu baax duñ ko def daara daa sore danaa ci ñëw nag waaye giñ naa ko jëmmi sëriñ tubaa fii ci dëkk bi. bu fekkoon def lu baax nit bu ko defee te ñam koy defal génn wax nga ne lii déedéet kii sëñ sëñ Bass defut lii sénégalais nag moo baaxoo loolu danañ ko nangul ñëpp nag waaye bu fekkoon teraanga jëm defal ñëpp maanaam képp koo xam ne nekk nga ci dëkk bi nga génn ne lii la ma sëñ Bass jëflanteeg man ki koo xam ne benn bu dee ku koy wax wax ju ñaaw man ngaa wax lu ñaaw ci biti ba ñëw toog ci wetam mu génne la teraanga joo xam ne ne jox la ko ba ba ba ba nga ba nga jàpp ne yow li ngay wax xamu ko wala dala ci ragal fekk déedéet sam xel toll foofu te moom sëñ tubaa di ko liggéeyal te sëñ tubaa ku koy liggéeyal doo gestu ginnaaw ñetteel ba tool yi dégg nga ko ci yoonu Saalum bi tool yu mag la fa def nekk fa war dëkk ba di leen dimbali loolu moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ñetteel ba it jumaay sëñ tubaa ji nga xam ne nii sëñ tubaa fi la ñaanee na julli gu sax dakk bërki di moo njaay gis nga image yi matériel yi mu jënd ba noppi soññaale taalibe yi waa sëñ bi wax yu jëf yu baax yi ndax ma ne su ko wax sëñ Bas da ngeen a gis mu génn di ŋàññi kenn ci kër àdduna dama yaakaar ne nag sëñ Saliou bu defee lii Cheikh Mamadou Lamine Bara def lii kàcca toppat mooy Cheikh Sidil Makhtar yàlla na ko sunu borom doole teraanga lu mu wax moom daa mottali lépp nag la sëñ Moustapha Saliou doon wax naan sëñ Touba euh, jëmm la joo xam ne ku ne da ngaa doon ab cër. sëñ sëñ Sidi Maxtaar daa ñëw mottali lépp sëriñ bés moo may waxal mooy samay mooy sama làmmiñ moo may waxal mooy sama bët moo may xool mooy samay tànk moo may doxal matal na lépp liggéeyub sëñ tubaa boobu doomi sëñ tubaa ñaanaloon na ko eh, ba doo tàggali kooku liggéeyul liggéeyul sëñ tubaa ku ko xam da ngay daal di noppalu te xam ne cër bu ko yàlla cërale la te mu mat ko sëkk nag ci ay relation loolu danaa la ci nettali benn élection yi Macron Macron gañe woon ci ginnaaw bokk na ci ñim ñu ñim njëkk woo ñim njëkk woo benn li tax loolu mooy dana ko ci mu xelam benn it ñetteel ba xam nga ñun dañoo jàpp ne maanaam intellectuel mooy ku jàng français déedéet intellectuel ni ku ci loolu du am njàngum nasaraan intellectuel intellectuel mooy koo xam ne ni boo leen toogee jëflante ci jëflante bu rafet dana la bu dee ci xam-xam ndax loolu du Diouf wax na ko ci image yaa ngi fi man li may wax rek image yaa ngi ci ku nekkoon ak Abdou Diouf ak sëñ Bassirou Abdou Khadir Paris nee na Abdou Diouf ko wax ne ko kii exceptionnel la maanaam ku ku yéeme la parce que euh, at at am ak histoire yi mi mën a capté ak ni mu la koy mën a nettalee maanaam eh, kii daal eh, jaaxal na ko ci maanaam nu nu cër bi ko yàlla jox ne ak at toll ak li muy li li muy wax ak yow mu koy mën a capter ak ni mu koy waxee ni muy jaaree yoon te jëmmam du raf du du du du jëm maanaam seetlu ko ci mas deng lay def te xam lu bëree bëri nag te mën a saafara lu bëri ku noonu nag boo ko amee da nga koy xam ndax ñun baaxoo nañoo am lu ñu xamut. senegal dangay nekk fi ba dem ñu ku baaxoon la moom de kum wàllu yoo la woon barkeb sëriñ Touba mbakki cër bu mat la am ci sëñ Touba. billaahi la si lu tax nag doomi sëñ Touba yi tànn ko foofu nga war a xam ne kii am na ab cër ndax mission bii mu yore ak ñii mu njaboote muy waa kër sëñ Touba yi di leen waxal da lay wóor ne bu fekkoon ci mag lañ koy teg am na ñu ñu ñu ko mën a jox kon nag. ñi nga xam ne dañuy wax wax ju ñaaw fa may njëkk a avertise mooy lenn ci ñi nga xam ne ni xëy na ci environnement bi nga xam ne boo leen doon tànn di tudd sëñ bi mën nga leen a tudd am nañu ko ci daa def wolof nag nee na ku yàpp saw askan rek ca biir ca biir askan wala tàmbale ñooñ nag ñoo war a arrêté njëkk a ci yenn détails yi ndax loolu dama koy wax man mii li may tuuti tuuti daan naa egg ci jamono yooyu damaa dem ba comme olof nee na lu waaye di yooyu da koy nuru ma royaale ko ca fa far bàyyi ci yëpp waaye ku ma mas a tooñ suba teel balaa ngoon ma dem lijjanti ko laa yaakaar naa ñi xam nekk ci dëkk bi xam nañ loolu te diggante su gàtt ma jàpp la waaye ndax toroxal nit muy duma wala dóor war a rey ndax warees na koo xool ci waa kër sëñ Tuubaa di ko ci gis moo tax bëggut loolu te du ko doxee du ko waxee kon nag nit ñi war a xam seen bopp ku yoree rasem fële nag nga xam ne ni bu fekkoon mu ngi ci cëpp Sénégal ray mu dee rayul mu dee la foo ko foo ñooñu ñooñu taxul ñooy wax ñooñu moom nañ leen bàyyeek foofu ñuy laal seeni i seen yëf di wax lu bon sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royteef një ñëm dëkkaloon di ay di ay jegenaaleem ñaa ñoo ko njëkkoon di contre di wax lu bon terewul muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewul muy al amin tëréewul mooy ki yàlla tànn kon nag tànneefu yàlla bu ko sunu boroom tànnee rawatina muy kër keppaaruk sëñ tubaa gi waa kër sëñ tubaa ñoo ko ci war a njëkk jàppale seexi sëñ tubaa yi jàppale ko ci te loolu sëñ muntaxaa yi defaat na ci lu rëy xam nga sëñ basiiru cheikh du basir mooy koo xam ne ni eh, la sëñ saaliw ñaanoon saa su ne daa am lu ko ciy topp gis nga li sañ muntaxaa defaat sëñ muntaxaa fan yee jàll ci eh, eh, nigut bañ ne màggaluk sañ abdou suba la mu woote bi surne xam nga nit ñi faw ñuy xalaat loolu cërub sëñ Abdou Khadir da caa laalale xa xam nga nit ñi dañ dut xam loolo ñu def sunne xasida yi sëñ maanaam sëñ Muntaxa naatal ñu bis mi maanaam woyofal ñu dangar ja ci nekkoon ñëpp ba mu woyof ñu xëy màgg màggalu sëñ Abdou Khadir bañ jugee ca loola bisub Seex yi Ibra ñëwut bisub Seex Ibra bi lu mu ci def fi ma lay nettalee nag mooy Seex Mamadul Muntaxa bu ñuy wax na Cheikh Mamadou Mountakha lu mu fi représenté du sëñ tubaa kon du mooy sëñ Touba lan la soloon ci bis boobu kaala gu ñuul kukk ak mu Baye Fall maanaam di roy ci Cheikh Ibra ba bis booba jeex baatub laa ilaha illallah te moo gën ci lépp lu ñu génnee ci làmmiñ mu jël kaala gi teg ko ci ànd koog yëkkatib loxoom di dund Seexul Xadim ak Cheikh ra ba mu ca noppee kaala gi kum ko jox tëj na xatam tëj na lépp. mooy wan ne ko liggéey bi yaa ko yor nañ woon Seex Ibra nga xam ne sëñ bi da ko daa soññ mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ba am ngërëm gi mu jëlaat kaala gi jox ko ko wolof nee na nag kaala bu njëkkee fu mu jëmaat ci kaw lañ ko ko tegal mooy bu doon cërub sa gisoo ko sëñ Muntaxa moo ko kaale woon jox ko kon sëñ Alaaji Baara def na ab cër bi ko sëñ Basiiru daa doon jëmm joo xam ne suñ borom da koo teral ku ñëw rek sànni ci la nga ca war a sànni dem sëñ Baara teral ko Cheikh Mamadou Lamine ne ko yaay sama lépp sëñ Muntaxa ñëw kaala ko kaala ka nag jot na mat na kon nag ku ciy waxaat leneen yow yaatal loola waaye ñun ñun ñu ñun ñu xam liñ liñ am ñun valoriser nañu ko te doy nañu te loolu it boo ko tànnoon it waa kër sëñ Abdou Khadir ñëpp la yàlla bindee noonu macha allah. waaw ñun ay taalibe lañ nag ñun waxu bu ñu waxee damay génn jëggaane kër sëñ Abdou Khadir kër sëñ Madiba Sylla foofu laa toogee di wax ci kër sëñ Abdou waaye waa kër sëñ Abdou ci boppam la yàlla tànnee noonu. loolu mënta ñàkk ku jiitu rek faaw ñu lay sànni xeer wala ñu lay wax léegi nag àdduna moom kenn la yàlla bindewut ñëpp di wax ci yow lu baax. loolu moom yàlla bindewu kenn ci li may dégg ndax man damay gëstu léeg boo nit ñëwee bëgg a finiti bëgg a dugal débat ci keneen sax da gis mu gaaw finiti wax ja ndax bëggut ko wax tabbal ci am noppam lu lu lu lu lu mu wurta dégg wala lu ñaaw waaw waaye li muy def ci lu baax barkeb Sëriñ Tuuba bu fekkoon maanaam képp kum ko defal taxaw nga ne sëñ Basiiru defal na naw nga ne xanaa dëkk bépp kon moo leen yor te jëf ju baax la rek te da koo war. ndax moo njaboote ku xasa dem ba doon porte parole bu nekkal fi sëñ waa kër sëñ Tuubaa yi di leen waa ñëpp waa kër sëñ Tuubaa leen waxal kooku yaa njaboote ñëpp te man dama cee am yoo xam ne nii ah, yu may yu may teg sama bët la yu may teg sama bët la yoo xam ne nii day def te yàlla tax te yàlla tax mooy ci ñi ñi ñi ñi bëgg a génn di génn muy sonn ca ñoom te loo xam ne ñoom ku na na ku ne defoon rek mu defal la lu baax nga génn wax ko daa yombut nag. def lu ñu defal la lu baax nga génn wax yombut nag moom waaye bu fekkoon def nañ ko ñoo xam ne kii kon ndekete maanaam kilifa dëgg la loolu nag kon nag ñoo ngi soññaat ñëpp di jéggalu ñëpp. kooku moom nag moom duggaat nga feneen tamit macha allah moo tax ma ne la waa kër sëñ Abdou Khadir boo tànnoon sëñ Cheikh mu sëñ Abdou Khadir nga ne maanaam xanaa kii moom macha allah boo ko ci tànn rek sëñ Cheikh moom boo ko njëkkee tànn tudd rek li ngay njëkk a dégg mooy dëggu geeg maanaam bëgg yi fi ne cocc. kon ñoom ñëpp nañ ma waaye kii nga ma tudd nag tamit wolof nee na euh, ragal péete day xañu wërsëg wolof doo ko wax te nag man nag euh, mbàkkul mbàkkaloon sëñ ma di ba maanaam jikkoy mbaay faal gi dama gën a dugg ci cëriñ gi te damaa soxlagu damaa soxlawut sax ak cëriñ man ab taalibe sëñ Tuubaa sëñ Fall waxoon jaay nañ lépp jaay ko jëndee koog taalibe loolu moo moo ñu dal Cheikh Mamadou Moustapha mu sëñ Abdou ginnaaw yàlla bu ma amee ab cër ci sëñ Abdou Khadir sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir moo tax xam nga nit ñi dañ dut xam benn bu jee ci dereet it ci ci lëga nañ dem gëstu ji bu dee ci mbokk moo ma gën a jege ci kër sëñ Abdou Khadir xam nga loolu nit ñi xamuñ ko moo tax it tuddee naa ko bant te wër na ma ci sëñ Touba ne bu fi sëñ Modou Moussa sëñ Abdou Khadir nekkoon bëgg ca lool ñetteel ba it ku mën a def lu baax ne moom bëriwul de. mën a def lu baax rek te yàlla rek tax danga koy natt ci koor ak ci tabaski ak màggalu Touba dangay xool màggalu Touba ni mu sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadir ku sa bopp ngay tal. sam xel jaxasoo mu jekki-jekki wutub otoom suuf ci ay ay ay yu bari natt njabootu kër sëñ Abdou Khadir jàpp ne yelloo na ñu jox leen ko te nga xam ne ab cëram la bu mu war a def. day jékki-jékki nga jékki oto bi gaare ñu ne la sëñ beeku fi yónni woon yëkkati ab som jox la yëkkati ab ceeb ne la santal sëñ Tuuba te bu ko neexoon bañ ko def ndax bis boobu kenn tëlut kenn ku ne yaa ngi xalaat nooy baxee sa mbir jak moo tax nañuy génne yu baax yi ko leeral ngir nit ñi mën cee jariñ ba noppi nag waa kër sëñ Tuuba yi fonkoon ko yaakaar naa ku ne xam na ne sëñ Murtala ak sëriñ Saliou ni meloon ci moom ba gis nga sa yu bari yu ñu nettali sëriñ Saliou di ko am ci sëriñ Saliou moom moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy nettali te sëñ Saliou fonkoon ko fonk koo xam ne saa su bëggee wéttaliku rek day woo da koy woolu mu ñëw waxtaan moom. moo moo sëñ Moustapha daal bu ñëwee rek sëñ Saliou dana dana am cawarteeg mën a wax ci sëñ Touba ndax daa xam na mi waxee ak moom moo tax it gisoo cër bi bi mu ñëwaatee it demaat Masaalikul naan mooy di woo mbokki taalibe yëpp le 29 janvier ca Mbour am na bisu delloo njukkal sëñ Touba waaw suwaab mooy delloo njukkal rek delloo njukkal moom fu ne nga ko mën a defee comme dañoo amoon bis fii muy bisub sëñ Abdul Xadir ñun ñëpp ñu bokk ko di ko ànd ak talibe am talibe yu fa nekk yoo xam ne ngant da leen daa dab ñu ne nañ leen nañ leen fa dem defal leen fa bis boo xam ne delloo njukkal lay doon ndax sëñ bi moom fépp la kon foo ko fa santee rek maanaam sant nga ko ci bërëbam te it sëriñ Saliou moom macha allah euh, doonoon koo xam ne moo doon defar ndaw ñi. te foofa dañ ko daa dàkkantalee ab bërëbam kon moo tax it ba ma tànn it ma tànn xaritam sëriñ Saliou boo ko déggee ñu ne naa la borom mbuur moo tax it bi ma tànnee sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadir laa tànn tuddee ko bis bi ba noppi teg ci sëñ bas mu sëñ Abdou Khadir mooy invité d'honneur bi ndax at mu njëkk ma sëñ Bassirou laa ko laa ko defoon te booba it la taxoon Cheikh Mamadou Lamine Baara njëkk ko tànn moo taxoon ma tànnoon ko ngir am ngir barkeloo ko ngir lépp barke am barke ñu ngi ci woo mbokki bi ya fa nekk ca dëkk ba ak eh, Omar Sow bi nga xam moo nekk fii ci jam ñaajo moom it nga xam ne ba may demee di yóbbu lettre bi sëñ Bachir mu sëñ Abdul Xadir ndeysaan moom it bëgg na ca lool ba ne ma eh, xam na Omar Sow sëñ Muntaxa moo leen moo leen xamale woon moom eh, ñu ko ci delloo njukkal ndax ñun dañuy Baay Faal yoo xam ne ni kuréel bi ñu ngi ko tuddee BI waaw BI mooy Baay imam bu dee ci Baay Faal nag ñu ci fekk bañ mat sëkk waaye bu dee ci jullee ka jàng alxuraan yi dang ñu ci fekk muy imaam gi ndax ñaari cër lañ am te xeebuñ ci benn it te bu ne kuñ kenn ku ñu ko doyee dal rek ñu bàyyi la. waaw ah, kuréel googu nag euh, kuñ naan sëñ daam mbay mooy mooy njëlli mooy génération surtout imaam ñoom nag ñoo yore wàllum xidma yi ak organisation bi euh, ñoom ñoo daanaka ñooy sama buñ doon ñu wax kàttan ma ne ñooy sama doole. ak daayira Daaru Rahman ak Mbuur ak Ndindig Sëñ Fallu ak eh, ak soppe yi rek loolu moom mooy mooy mooy xidma bi kon nag bis ba moom ñu ngi ciy woo ñëpp eh, Sëñ Fallu Silla waatul bu yoota mën a kuy dugg ci bunt da ngay jaar ci dugg ci kër da nga jaar ci bunt ba di woowaale cubbu gay maa fa nekk ci Mbuur ak waa kër Sëñ ak waa kër Cheikh ak Cheikh Sëñ Tuubaa fa nekk yëpp képp ku fa ñëw daal ñu ngi ñaan sunu borom defal la jàmm ak feex xam nga nag ñun dañuy niti aljana nitu aljana aljana boo fa demee doo gis lu débordé lu organisé woog lu lu man boo ba tax na ku ma dëkkal sax dangay am problème da ngay ndax damay bëgg lu organisé wu boo tax boo dëkkee man te di débordé wu rek moom duñ mën a yàgg sama ñamit damay bëgg ku ku dugg da ngay dugg rek suur waaw ndax damay damay looloo ma neex man defar aw ñam mu bari samay bët ni rafet moo ma gënal di ko lekk loolu nag xëy na natt la waaye natt bu baax la ndax dañ ne leere ay mbiskit leere ay nit ñuy lekk moo gën tabax junniy jàkk loo tax looloo tax nag it man it eh, ñu ngi koy wax képp koo xam ne ni yaa ngi waaj bis ba rek eh, nga nga nga nga nga nga def ci ay ay teraanga yu am solo képp koo xam ne daal sama mbég sa mbég la mm-hmm. bis bi bëgg naa teraanga yooyu nga tudd mu ñëw ci bu baax ndax murit aljana doo dégg ñu naan aljana la ñuy dund moo tax bernde yooyu ñu daa daa bokk suñ programme waaw dama bëgg daal nga xam ne foo taxawatee moom bu ñu la xoolee rek seen xel dem ci ñam ndax bokk na ci li gën a mën a yeggali nit ci ak jaamu yàlla ak yu bëree bëri joxe mi ñam moo tax maa ngi koy déglewaale ñëpp nag di joxe ñam ba noppi di ko joxe joxin bu baax waaw di di wax nag euh, ñu ñaanal ñëpp rek. wax ne nañ woote ci jàmm euh, te yàlla defal ñu sutura sama xuluwaale bi ma daa nga xam ne dama ko daa kii it ñu ngi koy ñaanal léegi mooy képp ku nekk ci dëkk bi rek ñu ngi lay ñaanal jàmm yàlla defal la sutura wa axiru dahwana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ku